wan nga réew mi xar baax tax nga léegi ñuy doomi Bamba yaa baax ñoo ngi lay siyaare ndaama dambe ak Kajoora ndaama laa jara way jara kañoor maa ko kañ bañi kàcc yori jooro Seexi Faadilu moo yàlla may na ko laa sindanoora jërëjëf waa Sénégo ak 2STV ak 2STV ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay yi ni ko ñëpp di dund rek benn baat rek lañ ciy wax mooy moom fii la génnoon taxaw ci buntu kër gii wax ne maay Sénégal maay Sénégal mooy maay mbokkum ñëpp maay Sénégal mooy fu nit jàqee ci man ngay rawsee maay Sénégal mooy dama sakkan boroom kër gi borom barab bi borom bis bii di Cheikh Mamadou Fadal moo ko waxoon loolu nag doy na sëkk ci ne yàlla firndeel na ni sëñ Touba nangu na bi sëñ Fall boo xoolee mbooloo mii xool bokk yi xool xar kanam yi di nga xam ne sëñ Fallou sunu borom nangu na ab liggéey la ko sëñ Saali waxoon nag ak yawma akmaltu lakum sëñ Tuubaa waxoon ko moom moom moo moo moo ñëw tey yéenay sëñ bi ci jaam yi yéenay sëñ bi ci dëkk bi Cheikh Amadou Fadal da koo matale kon nag bu mbégte la bisub tawféex la bisu ziyaare la waaye bisu fàttali ko la itam ngi gis giinu jàkkaar lool nit fekk na ko fi waxtu wu ne mu fañ aajoom ba te jii nit ñi di ronu gi gis gi di ci barkeelu ngir yàlla ak taxawaay bi nga xam ne Cheikh Amadou Fadal amoon na di yàlla bu baax di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi di ñaanal Serigne Aboul Bakar Baraka mii jo tooge jotaayub Sëñ Fallou mu yàgg fi lool te ak wér ak mbooleem njabootu Sëñ Fallou gi ñoo ngi leen di bége bu baax yéen waa 2STV ak waa Sénégo di ñaan yàlla mu yàggal seen taxawaay wéral leen di ziyaare Sëñ Amidou Diop bu baax Serigne Cheikh Ngounda Gueye ci xaside waaye di leen bégee bi bis bi nag day bis bu historique ci lislaam parce que ponk lislaam yi kon ku ne ci ñun xam na ni juróom la waaye benn rek moo ci am boo xam ni forcément du wàcc kenn dañu koy def juróomi yoon ci bis bi julli googu nag bis bii nga xam ne ci la Cheikh Mamadou Fadel feeñ ci la yàlla reñaane woon Sayyiduna Muhammad mu ànd ak Jibril ak Alburax dem ba ca moom mu jox ko ko muy sunub sërite doon obligation ci képp koo xam ni croyant nga di way gëm bokk ci jullit yi nga koy def bis bu nekk juróomi yoon kon histoire mënul fàtte loolu ndax li ponk lislaam wax naa la ko léegi li ponk lislaam yi di doon doon juróom benn rek moo ci nekk boo xam ni moom bis bu ne dinañ ko def juróomi yoon par force bis boobu nag ak loolu nu fàtte ki yàlla jox borom tubaab muy kun dul fàtte mel ni ab kado la ci borom Touba di Cheikh Mouhamadul Fadal bis boobu ci la feeñ waaye yàlla tombale koog sayidul ayam muy aljuma mbërum yàlla buy ñëw bis yi mu ñëw rek war naa wane ki mu doon ak fi mu jëm guddi kësu rajab guddi gi yonent bi riñaanoon ci la sëñ Fallou Mbacke ñëw waaye bisu aljuma la loolu rek doy na ay tegtal ci xam ne ni xam leen ni mbërum yàlla la mbërum yàlla nag mooy kook day faj aajo ci zahir di ko faj ci baatin moom sëñ Fallou mii sëñ am wax na ko léegi ku ne raam na fii ci ngigis gii wax aajo joo xam ni yow naagu nga ci ni du faju mu faju ku ne raam na fii ci njaqare goo xam ni bi ko koy wax gëm nga ni kenn mënta tee mu yegg si dañ laa forcé ba nga yegg si rek mu leer la ni yaa ngi séen li la li jëm si ci yow te xam nga ne du baax te gëm nga ni kenn mënta tee mu yegg si mu ne la du yegg si mu bañ a yegg si kon sëñ Fallou len rek mën nañ ko wax ci moom mooy bi ko yàlla ajee ci kaw ba noppi yàlla ajee sëñ Fallou Mbacké ci kaw ba noppi jox ko cër yi mu ko jox moom Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallou daa wàcc ba nit ñi mën a yegsi ci ñoom ci moom bi wàccee ba nit ñi mën a yegsi ci moom it day fexe ba nga ñeme ko man ko wax li nga bëgg ndax kilifa am na nu muy tollu boo ñëwee ci moom te ubbilu la doo wax li nga bëgg waaye sëñ Fallou dina wàcc ci nit ñi ubbil leen boppam ba ñu wax ko li mu bëgg li ñu bëgg buñ ko ko waxee it du yem ci dégg ko day taari taxaw ngir mu faju yàlla nag daa bëgg doomu aadama nit la yàlla gën a bëgg ci li mu sàkk kon ku taxaw tekk seen digg laxasaayu ni man man yàlla faj aajo yi sa jaam ñi laa fi bëgg a nekke yàlla jox la liy faj aajo moo tax yàlla jox ko kun fa loolu looloy bis bii ñi jébbalu ci moom ak ñi jébbaluwul ci moom ak ñi dulli murit ak ñi dem ba dooni chrétien ñëpp soppay sëñ Fallu Mbàkke lan taxaw nag pour faj aajo jaami yàlla yi moo ko may loolu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.